إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa ta'ala ñu ngi seede na yàlla rek mooy ki yeyoo ñu koy jaamu ñu ngi seede na muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la woon yonente la woon bu mu yónni ci ñun yàlla na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmiddin mbokk jullit suñu boroom yàlla day daa wax ak ñun ci téere bii nga xam ni suñu teddaange àdduna ak alaxira ci la nekk téere bii nga xam ni moo ñuy jubal ci la gën a jub la gën a maandu la gën a sell ci dund téereem bii di alquranul karim borom bi subhanahu wa taala mu ni e yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ragal leen yàlla ni yàlla yeeyoo ñu ragal ko ko bu leen déema ko lu dul ngeen jébbalul seen baroom ngalla waay yéen ñépp bokk leen jàpp ci buumug yàlla gi muy diinam ji selli ji ca ngalla waay bu leen teqali ko fàttaliku leen mas ngeen doon ay noon suñu borom boole seeni xol ngeen nekk ay doomi ndey loolee ngalla waay bàyyi leen ko xel na ngeen góorgóorlu fu ngeen mën a toll di digle lu baax di tere lu bon ca xam ne ne ñooñu dong dong ñooy ña texe moytu leen bokk ci ñi nga xam ne dañoo teqali ko juuyoo gannaaw ba leen lay dikkale ñooñ day mbugal bu tar dana leen ñeel mbokk jullit aaya yi bañ ko déggee lan la ñuy jàngal mooy julliti àdduna bi yépp day dañoo war a xam ñoo bokk ndey ak baay ku nekk ci ñoom di xool lan moo may jëriñ di jëriñ samay doomi ndey jullit waaw ana nag jullit ñoo xam ne ñoo far bokk bennum réew moom ñooñu moom lan muy seen mbir looloo tax ba suñ xutba tey bii ñi ngi ko jubali la nga xam ne mooy ndaw ñi ay laaye biir yu ñu bëgg a laaye biir ndaw ñi di ko yóbbante it way jur yi ngir ñu wax ci ak seenu njaboot bokk na lu ñuy dégg ci suñu presse bi ñu ne ambassade de France day nee na ay ressortissants fu ngeen mën a toll na ngeen fagaru ambassade de Amérique day nee na moom it ay mbooloom na ngeen fagaru ku nekk di wax lu tax mooy ragal nañ fitna yu rëy yu dal ci suñu réew mbokk inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan mooy waral fitna boobu ngiree nee nañ am nañ kenn ci suñu waa réew tuumal nañ ko ak njaaloo kon ragal nañ ñu réew mi dana tàkk mbokk loolee nekkul loo xam ne nii lu jaadu la nga la way yéen ndawi jullit ñi xam leen ne ay jullit ngeen avant ngeen di nekk des politiciens xam leen ne ay jullit ngeen avant ngeen di nekk des partisans ci lu mu mën a doon lu mu mën a doon xool leen suñu borom yàlla lan la wax ak yéen bokk diine lislaam mooy diine bu woote ci defaroo diine bu woote ci jàppaloo diine bu woote ci daw fitna mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala gis nañu ne wan nañu ay misaal yu rëy yoo xamee ne nii ay nit jaar nañ ca benn ñoo xam ne dañuy woote ne gëm nañ yàlla fekk ne bu ñu jógee lan mooy seen jubluwaay bi gën a rëy taal ay fitne kese ba ñoom ñu mën caa profité na am waaye nag yow mbokkum jullit yow mi xellu gan la waay nekkal contraire ñooñu boo delloo ci téere borom bi yaa ngi fekk lu raw li ñu wax ni moo tax ñuy xalaat ne dañuy taal suñu dëkk bi yàlla bu ci yàlla ànd mooy ki nga xam ne yonent yàlla Muusa ba mu jógee woote day Firawna ak notable am dañ ne kii moom dañ koy rey képp koo xam ne ànd na ak moom moom ci boppam sax dañ koy far rey waaye suñu borom nettali nañu kenn koo xam ne daa jóg ca palais ba wax ak ñoom ne ma yéen naka ngeen di reye koo xam ne waxul lu dul yàlla mooy sama boroom ci indi na ay lay yu leer ñépp dal ci kawam mu wëlbatiku leen ne leen day ay yéen saw xeet woowuma leen lu dul ci li leen di texeel donte ne yéen a nga may woo jëme sawara léegi nag samay mbir delloo naa ko yàlla xalsa ngeen a xam ana naka la ñuy mujjee loolu mandarga bi ñu yàlla di nettali lu tax mu ñu koy nettali mooy yow foo mën a nekk ci kaw suuf dangaa nekk palais ba wala usine ba dangaa nekk ci syndicat ba wala foo mën a nekk xamal ne ngalawaay sa jubluwaay bi gën a rëy heure boo yégee ne fitna mi nga bëgg a tàkk yow nga taxaw ngir fanq fitna boobee loolee mbokk mooy jubluwaay bi gën a rëy suñu borom yàlla mi ngi ñuy nettali ñoo xam ne it ay yonent lañu bañ ñëwee ci seen xeet ca suuratu yaasin woo xeet bi ca la leen di texeel àdduna ak àllaaxira loolee bi nga xamee ne am na xeet bi ne leen da ngeen di noppi wala ñu rey leen borom bi nee na benn waay moo dayoo fële ñu ne ay waay saw xeet topp leen ñii ñoom laa duñu leen pay ca bëgguluñ leen lu dul aw yiw loolee mu taxaw ngir yéwénal xeet ba tax na sax ñoom ñu far ko rey bañ ko reyee sunu borom moo ñuy nettali mu ne yaa layta qawmi yaalamuun bi ma gafara li rabbi wa jaalani min al mukramin e waay sama xeet ñàkk nañoo xam ba rey ma aka neexoon ñu xam ne liñ ma reyee muy dëgg aka neexoon ñu xam teraanga yi ma yàlla xamal xoolal mbokk kii xattaa bi ko xeet bi reyee mi ngi dem ca boroomam doon mébét aka neexoon xeet bi xam ngalawa yow ndewal julit melal noonu ci sam réew melal noonu ci bañal fitna ci seen réew loolee da ngay gis ne borom bi yàlla won nañu ci ay misaal ay ndaw yoo xam ne ci asxaabul kahf bañ gisee seen waa réew mépp riir ut ci safaanu lu neex yàlla dañu leen a gàddaay beru ñoom ne ñoom day duñ ca bokk waaye nag duñu nekk di lor kenn ay misaal yu baree baree ngi nii suñu borom yàlla daal di ñu koy woo jëmi ngiree ndaw ñi man cee bàyyi xel fu ñu mën a toll loolu moo tax ba ay yow ndawal julit melal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ci tàndarma nee na julit mook tàndarma yem tàndarma mooy garab goo xam ne léppam dañ koy jëriñoo noor ak nawet mu ne jullit day heure boo àndeek moom njëriñ rek ngay gis ci moom fu ngeen tooge njëriñ rek ngay dégg ci moom fu ngeen jàppalante njëriñ dong ngay gis ci moom lii mbokk mooy la nga xam ne mooy mandarga julit su ko defee yow mi nga xam ne nii ndawal julit nga góorgóorlul sa kemtalal kattan bu la presse bi yóbbaale ca woote yi nga xam ne ñi ngi koy woote ca moo dina ne place sangam day ña ngay daje ña ngay tal lacrymogène ña ngay kasa ña ngay kasa lu bari ci ndaw ñi seen deret day tàng du ñu man toog di déglu loolu waaye ngal la waaye xamal loon ngay def mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala dafa tagg suñu xeet bii gannaaw ba mu waxee misaal ca ñu jiitu woon nañu kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tuminuuna billah mboolem xeet yi fi mas a jaar yéen xeetu lislaam yéen a gën lu tax mooy yéen di ngeen di diglu lu baax di teru lu bon ngal la waay yow ndawal julit heure boo gisee say xa say moroom jóg ne dañuy dem jëm ci ak yàq loolee di lu métti xol événement yi fi jaar fan yi passé nga dégg ñu naan la place sangam ñaata boutique dajji nañ ko fa ñaa ñaata ci ay oto taal nañ ko fa ñaata ci kër yi jàmbur yàq nañ ko foofee loolee mbokk lan moo ko waral amul benn raison ay nit ñoo xamee ni seen yoon nekkul ci la nga xam ne mooy la xew ngeen ñëw yàqal leen galla waay yow ndawal julit xamal ne yonent bi alayhi salaam da doon wax naan kullu muslim alal muslim xaram lu julit moom xaram na ci mbokk julitam dammuhu wa irduhu wa maalu daganul ngay jël sa deretu mbokk julit di ko tuur daganul ngay jël alalu mbokk julit di ca lekk ñaari dërëm wala da ca yàq benn dërëm daganul ngay jël ab deram di ca wax lu jaaduwul galla waay yéen ndawal julit yéen ndawil islaam mel leen ne ñaareelu parti bi yonent bi alayhi salaam doon wax yonent bi alayhi salaam nee na day société bi ñaari parti ñoo ci nekk ñoo xam ne seen jubluwaay mooy woote ci fitna ak def lu bon amul benn dëkk lu dul yàlla nattoo na leen nit ñu mel noonu ñoo xam ne bëgguñu jàmm ci réew di woote nag ñoo xam ne amuñu benn xel di leen emporté waale waaye ngal la waay yow ndawal julit melal ni yonent bi alayhi salaam waxoon nee na nit ñi day dañoo mel ne ñu nekk ci benn gaal gaal gi am benn étage mu am ñu nekk ci kaw étage bi am ñu nekk ci suuf ndox mi ñuy jëfandikoo nag mi ngi ci kaw étage bi waa suuf dañuy yéeg pour am ndox ba mujj ñu ne ah au lieu ñu nekk nan di yéeg dañuy bëtt gaal gi rek jël ndox mi directement mën nañu nekk ci kaw bu ñu fa toogee naan ah seen seen problème la bëtt leen seen côté nee na bu gaal gi dina diig ñoom ñëpp ñu àndi diig waaye bu ñu wàccee ne leen déedéet gaal gi du ngeen koo dubbat ñoom daañu sauvé sauvé waale leen nga la way yow ndawal julit bokkal ca ña nekk ca kaw gaal ga heure boo yégee say moroom jóg jëm ci fitna nga la way fexeel ci naka ngay waxante ak ñoom maa ngi jublu ci ndaw ñooñee ña nga xamee ne ñooy takk der ya ak ña nga xam ne nii ñooy dem ca daje ya nga la way yow mi nga xam ne takk kotub der nga gendarme policier loo mën a doon sa métier boobu de métier bu noble la boo ca jiitalee sa borom ca mooy der gii de maa ngi ko takk ngiree jàmm am ci réew mi der gii de maa ngi ko takk ngir duma seetaan kenn di lor kenn nga la waaye yéene boobu ñu nekk ci yow loolu it xamal ne ñii ngay dajeel di ay innocent nga xam ne dañ leen a yóbbaale nga la waaye bul topp rek la nga xam ne wit mooy sa deret bu tàng dóor ay lacrymogène ci loo xam ne nii sans raison dóor ay bal ci loo xam ne sans raison ngalla waaye loolu yow mi nga xam ne it takk der nga jiitalal yàlla jiitalal yërmande ca la nga xamee ne mooy daje ba ngeen di daje yéen ñaari parti yépp ay doomi réew mi ngeen yéen ñaari parti yépp à plus de quatre-vingt-quinze pour cent ay doomi l'islam ngeen daganul ngeen di tuurante deret daganul ngeen di fitnaalante ci seen biir loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee ay yéen ndawal jolit ngalla waaye ñu ngi leen di dénk lu jiitu fexe leen jàng seen diine lu bari ci nit ñi nga xam ne pare nañu léegi joxe seen bakkan ngir parti bi joxe seen bakkan ngir sport joxe seen bakkan ngir lu bari koo ci laajoon na ko waaw nu ñuy taayaa xamu ko koo ci laajoon na ko waaw nu ñuy sangoo farata lu bari xamuñu ko jànge leen seen diine ca diine jooju ngeen pratique ko ci seenu dund mu nekk loo xam ne nii mandarga la ku leen gis xam ne yéen kat ay jullit ngeen ci mboole mi doxalin yoo xam ne di ngeen cay nekk di ko doxale nga la waay yéen mbooloom julit xam leen ne diine ji mooy seen teraanga doon leen ñoo xam ne da ngeen di woote ci yiw moytu seen kéemtalaal kattan ca ña nga xam ne dañuy nekk toog ca seen studio wala toog ca seen bureau climatisé di wax ay wax di ko sànni la nga xam ne nii mooy doomi pauvre yi doomu baadoolo yi ñu génn ci réew mi ñu leen di rey comme ni ñu rey ay xar bés bu ne ñu koy gis partout dans le monde la nga xamee ni nii mooy intérêt ba cay juddoo du ngeen ko gis seen bay du ko gis ñoom ñoo koy profité su ko defee moytu leen mbokk ñu leen di dugal ci loolu jokkoo leen ak seen boroom dund leen seen diine sàmm seen i waxtu julli sàmm seen i askar lu leen jaaxal delloo leen ko ci yàlla subhanahu wa taala ay yéen dawal julit xam leen ne yàlla mooy borom teddaange yàlla mooy borom kattan bëgg dara ci àdduna ak pal la alal la lu mu mën a doon bu mu tax nga xooj sa diine dem ñoo xam ne la nga gëmoon nga changé ko dem di jaxasoog ñiti biddaa yi jaxasoog ñiti shirk yi jàppale ñoom ñoo lay may teraanga mbokk loolu njuumte la suñu borom mu ne qul illahuma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal xayru innaka ala kulli shay'in qadir mbokk yàlla mooy jox nguur ku ko neex mooy jël nguur ci ku ko neex mooy teral ku ko neex mooy toroxal ku ko neex mooy wërsëgal ku ko neex mboolem yiw ci loxo yàlla la nekk pourquoi nga koy seeti ci keneen pourquoi nga koy seeti ci mbooloo yoo xam ne lañ nekkee yàlla gërëmu ko loolee ngal la way ndawal julit bu la ko politique jaral bu la ko lenn jaral ci la nga xam ne mooy sa dunduk àdduna gi ngal la way ndawi julit góorgóorlu leen doon leen aji muñ xam leen ne àdduna bi yàlla dañu fee indi pour nattuñu bul woñe na man kat comme ñàkk naa àdduna tukki na nu ma mën a def ba am naa ko def déedéet muñal muñ gu rafet ca xam ne ndaw nga mbokk ndaw amagul ndaw ñàkkagul muñal muñ gu rafet dellu ci sa borom la gën a am solo muy muñ gu rafet yal na yàlla defal ñu ko defal ko suñuy ndaw mbokk góorgóorlu leen ci moytu lekk lu xaraam lekk ci alal joo xam ne ni ngeen ko amee sellul ak lu la ko mën a may baaxul boole leen ci seen ñaan la yonent bi doon wax allahuma akfini bi xalaalika an xaraamik wax ni nii bi fadlika aman siwaak ay yàlla yàlla nag ma may ci li dagan mu doy ma ba duma dem ci lu xaraam ca boo ko doyloo rek mu doy la wallahi lala yàlla wërsëgal ak néew soo ko doyloo rek yàlla def ko mu doy la yàlla yàlla nag ma wërsëgal ba du ma dépendre ci keneen ku dul yow lii ndawal julit da ko war a def la nga xam ne mooy ab yóbbalam ay yéen ndawi julit moytu leen di deme seeni xel ak seeni xalaat mboolem loo xame ni ni am na ngalawaay laat leen ci ay boromi xam-xam bala ngeen caa dem di réagir am marché la am ab lu mu mën a doon ci àdduna bala ngaa jóg di ca réagir jokkool ak na nga jàpp ne am na xam-xam ne leen waaw waa mbir bi xew moom ñun ndawi julit lan moo ci war a nekk suñu position loolu la leen yàlla sant suñu borom mu ne walaw rudduuhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbitunahu minhum heure bu ma indee fitna nga gis ñu daal di koy jóg tasaare et pourtant day buñ ko yóbbu woon ca seeni borom xam-xam ñoom daañ ko mën a settantal ba xam fuñ cay jaar ngalla waaye ndawi julit bàyyi leen xel loolu yéen ndawi julit yéen a ngi nekk trésor bu rëy boo xam ne seytaane mi ngi taxaw ngir ngeen ngir ñu yàqal leen ko trésor boobu mooy jeunesse bi nga xam ne yowmal qiyaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tazulu qadama abdin yowmal qiyaama xatta yusala an arbai xisaal عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمل به bala ngaa dem fan nga doon àttee yowmal qiyaama bala nga faa jóge daañu la laaj ay laaj bokk na ci gën a am solo temps bi ngay nekk jeune lu bari borom xam-xam yi di ko wax un ba quarante ans diggante bi ngay dem ba am quarante ans yow nan nga taxawe woon ci kaw suuf gannaaw bu ñu laajte su dund gi yëpp ndawal julit bàyyil xel bu doon te ne jeunesse boobee da nga koo def ci lu neex yàlla yonent bi alayhi salaam mu ne sabaatun yazilluhum allahu fi zilli yowma la zilla illa zillu juróom-ñaari ñitte ngi nii daañ leen génnee ci milliards de milliards ya nekk ca coono bi si penc yóbbu leen ca karug borom ba di leen fa teral bokkoon na ca ndaw ñoo xam ne seen jeunesse lañ koo jaglee loolu ngir jaamu seen borom ay yéen ndawal julit ñëwu leen ci kaw suuf pour nekk des étudiants ñëwu leen ci kaw suuf nekk des politiciens wala des sportifs da ngeen a ñëw ci kaw suuf ngir jaamu seen boroom wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun sunu boroom mu ne binde ma nit ak jinne ngiree lu dul ñu jaamu ngalla waaye bépp boroom parti bu leen woo bépp sportif bu leen woo bépp directeur bu leen woo bépp général d'armée bu leen woo képp ku leen woo ci mbir bala ngeen ko caa wuyu xoolaat leen laat leen ba xam lan mooy atteb yàlla ci mbir bi ñu may woo loolee bàyyi leen ko xel yéen ndaw ñi lii de bu ngeen ko defee yàlla moom a ngeen féetewoo dana leen féetewoo ca ku yàlla féetewoo teral la àdduna teral la alaxira ku yàlla seetaan échec nga àdduna échec nga àllaaxira yal na yàlla sàmmal ñu suñu jeunes yi yal na yàlla wàccal ñu jàmm ci suñu réew fitne bi yal na yàlla fay ko yal nañu yàlla musal ci lu ñuy teqale yal nañu yàlla musal ci lu ñuy yàqal feebar bi nga xam ne doy lu ñu sëkk yal na yàlla teggi ko ci jàmm yal na yàlla saafara mboolem ñu ca tëdd yal na yàlla teeroo aljanna mboolem jullit yi nga xam ne faatu nañ ko ca yal na yàlla xamal ñu suñu diine wërsëgal ñu dund ko def ñu jullit ñoo xam ñu dëgg-dëgg jullit ñeen ñu allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar allahuma habib ilayna aliman wa zayyanhu fi qulubina wa karrih ilayna alkufra walfusuqa walisyan wajalna birahmatika min arrashidin اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين